Cheikh Maodo ñoo ngi lay nuyu di wax onsu na mina seytaani rajim di nuyu ñëpp li xew tey mooy ci suñ commune la xewe waaw avant ñuy dikk foofu nag bëggoon nañoo nuyu ñi ñu ànd muy délégation ànd taxawu askan wi nga xam ne askan wi rek moo leen ñor defe naa ne ku ne askan wi violence moom nekkul sa sa xel buñ la ko defee tamit da ngay lu metti metti da ngay jéggale fas yéene ànd ak askan wi rek ndax defe naa commune de Mbédiène moom mérito mérito wul yu mel nii ndax euh, bëgguñu ko fi gis ñu ñuy attendre nag di ñaan yàlla ëllëg ñu jiite commune bi wax dëgg yàlla ci euh, dal ak jàmm ak euh, waxtaan ak askan wi loolu la ñuy xaar ci képp koo xam ne bëgg nga ko ndax askan wi noonu lañ mel. waaw ñun dañoo juddoo ci commune bi yaroo ci commune bi màggee ci commune bi amuñu lu dul commune bi. ah kon buñ demee ba àgg foo xam ne ñu ne ñu ñu boot ñu ci biiru xeet nañu dëkku leen ci commune bi da nga fi gis sax ay kanam yoo xam du kanami politicien mais loolu dañ koy ñaawlu ba tey dañoo jël seen engagement ñëw ànd ci ndax ah, koo xam ne yow sa yaay fi la juddoo fi la dëkk sa papa fi la dëkk nga dëkk fi sa kër bàyyee nga fi say doomu bàyyee ngi fi sa soxnaa ngi fi ñu ne la dëkkuñu chef de village bi bind attestation domicile ñu ne la dëkkoo fi ñooñu ngay wut leneen wala ña ngay bañ a nekk en face à cet candidat moo tax mu jarale leen lii lépp monsieur le maire waaw waaye ñu profité foofu di sant autorités yi ku mel ne sous-préfet ak euh, ku mel ne commissariat bi ku mel ne tim euh, euh, commandant waaw ku mel ne commandant bi ak délégation bii ñu ànd ñoo ci jàpp tey buñ demee ba mën a yor bi ñoo ngi koy sant ñooñu waaye bu du ba gendarmerie sax dafa intervenir waaw ah, dañoo bindu bi ñëwee nag euh, man su préfet moo ñu ne dem leen ngeen bindu ndax li ngeen yor man ngeen cee bindu ñu ñëw wax ak waa commission bi monsieur le maire génn ne mënoo bindu ndax amoo certificat de résidence te moom moo ma koy libéré te man gënumaa dëkk ci commune bi ah ma woowaat kilifa gi nga xam mooy suñ kilifa ñu ñëpp ah kookoo tim daal di eh, insister wax ak waa commission bi ah, mu daal di bëgg a jël samay kayit man na ko tegal samay kayit monsieur la maire bu laal samay kayit mu jël euh, tampon yeeg yëpp yi nga xam ne waa commission bi doon nañ ko liggéeyee euh, waa Sénat bi doon nañ ko liggéeyee foofee nag ba ko waa Sénat fexe ba jël ko ci moom lañ gis melokaan woo xam ne ñu yaakaaruñ ko woon ci monsieur le maire ah mooy génn na aw foo xam ne man ñemewuma faa aw ne génn leen sama maire te moom locataire la ci maire bi dafi nekk tey ëllëg dafi génn am na benn nervi bu fa woon boo xam ne nervi laa ko tudde ndax ñun nee nañ ko yow wan ñu lu wan ne sécurité nga bi mu ñu génne laa ne ko le frère euh, de monsieur le maire muy Lamine Dieng maanaam euh, da koy génne ba nopp doog di ñu génne ah, foofee nag ah, ay problème am na fa ndax man dóor nañ ma fa te frère monsieur le maire moo ma fa dóor muy Lamine ci kanamu ñëpp waaye nag lu am na ay ñii ñëpp ñoo nga fa woon ak ñeneen ñeneen nit am na fa ay témoin ñun ba tey fayuwuñ ndax damaa xam ne liñ bëgg xam nañ ko lii commune bi lim yelloo xam nañ ko ndax it ku yaakaar ëllëg seese foofu di liggéeyal askan wi boo fa toroxalee nit sa xel war naa am ci lu mu dem kon nga xam ne ñoom la ñuy def bàyyiwuñ ca xel ah joxuñu cër askan wetu wax dëgg yàlla. li ma nar a nekk sama taxaw fii ma toll Cheikh Moustapha moom dëddu Cheikh Moustapha doom day Cheikh Moustapha mu am ay kilifa. di Cheikh Moustapha moo xam ne mi ngi ànd ak waa ànd taxaw askan wi te amul lu muy décider te ñoom ànduñu loola nag daañ ca prononcé waat bu ñu demee ba nga xam ne ñoom jël nañ décision bi ne lii la def Cheikh Moustapha loole commission bi wax loolee euh, waa ànd taxawu askan wi wax ak kilifaam yi nga xam ne ñu ngi ci ginnaawam di ko déglu loolee moom lay ca ca loola lay daal di dox. candidat moom ñoom duñ d'accord ñàkk d'accord ndax mi ngi aju ci ànd taxawu askan wi ak euh, euh, mbind mi nga xam ne ñi ngi koy def. muy bu ñu paree le huit defe naa ne le huit bala quatorze euh, foofa la ñuy saytoo yëf yi te yaakaar naa ne ñun defuñu lenn wala kenn mënuñoo génn ci mbéjén ba ñuy gàntal lenn. xanaa di sant yàlla ak yonent bi ak jëmi Seex Xadim ak ñii nga xam ne dañoo jàpp ngir rek askan wi dem ci kanam commune bi dem ci kanam loolu da ak autorité yi nga xam ne tey bu ñu fi nekkul woon man gëm naa ne bu fi autorité ñëwul intervenir woon Cheikh sawaa moom du bokk ci élection yi. di ñaan nag yàlla na yàlla def jàmm ñun jàmm la ñuy woote ñun duñ nit kuy violent ñun ñëwuñu pour violent ñëwuñu pour jaxase commune bi dañoo ñëw fas yéene ànd ak askan wi liggéey commune bi loolu daal foofu la ñuy jeexal di leen sant di leen gërëm ndax yéen bu kàddu jàlloo rek euh, seen taxawaay fo ñoo ngi sant euh, Louga TV ak Bakel 24 euh, TV di leen jaajëfal di leen xamal ne yéen a ngi seen liggéey rafet ndax gis naa leen feneen ci gox bi fu dul fii fii doom